suñu borom maa lay ñaan ci kooru tey gi waxoon naa ko ci naqar. boo ko waaw boo xëyee boo ko ci xol bu jeex maa ngi lay ñaan. nga may ko kooru jàmm kooru kooru barke. ak bépp mboolum jullit mu ma ko yéen. protection yi ma jël def ci soowam meewum pëndax nii jël ci ñaan yàlla mu rees ak jàmm ci sama biir. ñi ma ci yéene yéene naa leen ñi ma ci yéenewul yàlla nga dëpp seenu xel ko bi ka aman booba laa riche ñun de ma moom mais jot doga jot dot